mooy kan gi local la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko waaw El ñu ngi lay nuyu euh, DG Global Sen Vision TV ak euh, Ibrahima Faye Beuz bi nga xam ni tey moo fi yabal ak Saliou waa Lutte TV ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen wax bu baax ni tey ñi ngi sant yàlla daje arène national ñun ñëpp am lu am solo loo xam ne dañ ko fay def tey ku ne xam na ni euh, euh, ñun moom euh, man ma Ahmadou Bamba Mboup président association formation insertion de lutteurs du Sénégal li ma tax a jóg rek toujours ak li tax li ma demoon bitim réew ñibbi si Sénégal mooy création d'emploi jéem a xool nan la ñuy former jeunes yi jéem a xool aussi tamit nan lañ leen di jàppale ba ñu am emploi bu ñu yàlla dimbalee ci mbaaxam ba FILS tey mën a jàppale ay jeunes ba ñu mën a former 700 lutteurs. tey ba ñoom ñëpp tey yàlla def ñu am euh, euh, emploi tey ki nga xam ni moo leen formé di Matar Diop mi toog tey ma koy nuru ci tu nuyu ci turu waa association FIS yëpp euh, di ko sant di ko gërëm moom eh, moom ak équipe am ñoom chef Diallo Baara baaba ak ñaan tey tous les formateur yi fi daje ak baaba ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni rek li ñu tax a jóg mooy tey dañu am benn séminaire bu am solo bu ñu def séminaire de trois jours parce que dañu bëgg wër Sénégal xale yi ñu jàngal leen métier. waxtaan ak ñoom xamal leen ni nit ki mënul am liggéey te amul une qualification professionnelle léegi nag séminaire bi mën naa ni introduction la séminaire la boo xam ne ñi ngi ko tuddee madame Khady Diène gay di ministre des sport de la jeunesse et de la culture ak euh, di nuyu tamit la directrice de l'arène national mi nga xam ni tey moom la ñu euh, moom moo ñu dalal fii di leen wax ni rek séminaire bi ñuy def nii tey dañ ci bëgg créer des emplois ku ne xam na ni arène nationale bi tey ñun am nañ fi wàll tey arène bi sécurité bi ñu créer mu am agrément am tey euh, bëgg ginnaaw association bi bi ñuy formé ba pare bëgg recruter am na fi wàllam bu baax a baax a baax formé nañu 700 jeunes tey ñu bëgg formé waat tamit des milliers de jeunes bëgg madame la ministre des sports de la culture xale yi nga xam ne jot nañ leen formé ak yi ñu bëgg formé stadier yi nga xam ni tey arène nationale soxla nañ ko tey ñun yelloo nañ ko te xam nañ am nañ yaakaar ne ci kàttanu yàlla dig ñu ko jox parce que tey mënuñu am ñeneen ñoo xam ni ñooñu gën a méngoog fii parce que tey boo demee ci dëkk yu mag yi mu mel ni Angleterre wala France wala Allemagne sport yu mag ya fay am dañu am stadier ñuy accompagner police ak la gendarmerie nationale boobu convention lañ njëkk bëgg tey ministère sport def kook ñun beneen bi aussi ñu bëgg créer des comités de vigilance partout au Sénégal ku ne xam na ni dëkk bi dafa am insécurité ba kenn nangu à part de vingt kenn ñemeetul génn loolu aussi tamit ñu bëgg ko créer bëgg tam ministre bi tey comme que mayor jeunesse ñu fexe tam mu am ak ñoom convention boo xam ni dinañu ci mën a dimbali xale yi jéem am emploi ci gàttal daal séminaire bi ñi ngi ko tuddee la sécurité et l'insertion des jeunes bëgg daal créer des emplois parce que kii di un jeune mooy un jeune dafa war a am une formation professionnelle dafa war am emploi loolu moo ñu tax a jóg tey nag ñu tàmbale ko arène national bëgg nañu warale ko Sénégal yépp incha allah di jox nag kàddu gi ki nga xam ni mooy le grand formateur muy Matar Diop moom it mu sànni ci ay kàddu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi seetaan euh, di dëggal li Bamba wax rek di wax ni euh, tàmbali nañ ko ci bisimilah di ko ñaan ñu jeexal ko ci alhamdulilah rabil alamin euh, di wax jeunesse bi nañu ñëw parce que trois jours la des na deux jours yoo xam ni ay njëriñ kese la ñi nga xamante ni yëguñu ko woon ñu fexe ñee ñi fi nekk yëgal ko seen i morom te xam ne ñu ngi ñu ngi tàddalu rëy participation bi. booy symbolique la juste pour ndox mee ay affaire yooyu donc soo xool c'est gratuite na ñëpp ñëw euh, incha allah suba ba gannaaw suba muy troisième jour bi bu ñu paree euh, lépp njëriñ lay doon jërë ngeen jëf. di euh, kontaan am mbégtement bu baax a baax si li fi jot a xew tey di rafetlu aussi initiative bu Cheikh Modou Bamba Mboup bi parce que tey dañoo woote la sécurité et l'insertion des jeunes bon li séminaire de formation la pour ñi nga xam ne man sax mën naa ko woowee genre aperçu. pour mën a dugg dëgg-dëgg ci formation bi donc ñu ci appelé xam nga jeunesse bi yëpp ñu ñëw bokk ci séminaire de formation bi parce que séminaire de formation dafa am solo te boo xoolee daanaka amul comme mooy lu chef Matar wax rek amul li nga xam te ni gars yi nga ko siy génnee mi diis mille francs la donc loolu mën naa ndax c'est gratuit donc man maa ngi si apple ñëpp di si woo képp kiy jeune da nga ñëw bu ko defee nga mën a fekkee séminaire de formation parce que lu am njariñ la quoi loo am am solo la parce que sécurité du pratique kese dafa am théorie te je pense que ni théorie bi sax si la waaye si la gars yi war a gën a mën a euh, di si focaliser wu parce que théorie c'est la base de toute chose voilà parce que mën nga am doole comme ni ko gars waxee et tout mais boo amul mental bu solide bu fekkee aussi xam nga mënoo communication yaakaar naa ne sa liggéey ni nga bëggee mu demee du ko demee noonu donc ñu ngi woo ñëpp parce que séminaire donc aujourd'hui c'est le 5 jàll na pare mais am na deux jours yu des te ces deux jours là je pense que ni deux jours yi ëpp solo ci formation bi sa la nar a bokk parce que dinañ am ay petite démonstration yi xam ne ni dina am suñuy maître yu ko fi wane et tout donc ñoo ngi remercier ñëpp di sant bu baax di gërëm ci Amadou Bamba Mboup ci initiative bi mu wax di gërëm aussi les formateur parce que franchement moom amuñu fayam amuñu fayam parce que bu jógee ci lii mu ngi dal ci leneen depuis loolu ba mu quitté ba fii comprendre temps bi mu fi nekk def dara lu dul bëgg jeune yëpp liggéey bëgg wàññi chômage bi comprendre nga bëgg képp kiy jeune nga insérer mën a liggéey te mu ngi koy jaarale nag si bépp secteur du secteur bi dong mu ngi koy jaarale dans l' agriculture si élevage si économique si si si si ay formation yu diverses yu bëree bëri bëri bëri bëri donc man maa ngi ñaan à ce que euh, madame la ministre ñëw jàppale ko ñëw épaulé ko bu baax a baax parce que stade bi dafa soxlay stadier li mu wax sànq lu solo la boo demee tey jii dans les pays dans les pays euh, européens et Angleterre xam nga c'est-à-dire ñi fay nekk nekkee stagiaire loolu en fait day empêcher yenn parce que police mënul def lépp la police xam nga ma mënul def lépp parce que tey jii ñoom dañuy nekk ci biir enceinte bi boo xoolee ay trois à quatre éléments la ñuy pointé ci kaw donc ñun ñi nga xam te ni def nañu formation wala soit mu am ay mbër yi nga xam ne dañ leen a tànn ñu def leen formation ñooñu xëy na dinañ mën a composé ak ñi ñëw di seetaan ndax dañuy xamante seen biir. donc je crois que ni ñooñu sax ñooy gën a mën a am affinité pour mën a waxtaan ak ñoom parce que à chaque fois bu làmb jeexee da ngay gis ñu jël ay siis di ko sànni comprendre te loolu lépp war na mën a ñàkk loolu lépp incha allahu rabi bu ñu si jàppalee ba ñu ñu ba ñu ñu former nii parce que formation donc doyul genre il faut mu am une te pour ñu insérer jeunes aussi foog foog étatique genre bi fi nekk mën see jàpp ñu mën a insérer jeunes donc loolu laa amoon si li may wax di jégalu baax si kàddu yi. annonce bi ma annonce bi ma fàtte def rek bala ma ko jox soxna si vendredi incha allah la ñu war a def remise d'attestation bi à partir de 9h ñuy app ñuy ñuy woo ministre des sports madame le ministre des sports bi nga xam ni wax dëgg yàlla c'est la marraine bëgg nañu mu ñëw bëgg nañu tam président CNG ñëw bëgg nañu ñi ci invité waa waa waa ahlu làmb yëpp di ci invité tous les sportifs bëgg nañu ñu teew vendredi à 9h arène nationale invité nañu ñëpp ñu teew ci incha allah jaajëf. awuzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyoo mbooloo mi fi nekk yëpp tey bu ma fi ñëwee daal sama xol sedd na lool ndax bu ma fi ñëwee gis naa fi ay jigéen yu ñu formé te yàgg nañ maa wax naa ñëw mënuma woon ñëw wante formé nañ leen jox nañ leen liggéey yéex a ñëw bi laay rëccu wante maa ngi woo képp jigéen te bëgg a formé wu na ñëw njëriñ bi fii la ne waaw dem di jaay di dàqaate yi kenn amul ñëwal def xam-xam sa bopp moo ko ëpp fuuf ñoo ngi lay sant di la gërëm kontaan nañ torop waa ñu wax brièvement rek bu bañ gudd salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp maa ngi tudd Matar Guy gi nekk un lutteur en activité nekk tamit président mouvement de lutte contre le banditisme et la violence à muy sama mouvement bu ma créé sànq li nga doon wax dama si ñëwaat tuuti rek rebondir si mooy sama jaar-jaar mu siy nettali tuuti rek loolu gën a tax ma créé mouvement de lutte contre le banditisme et la violence mu nekk loo xam ne les années précédentes nekkoon na loo xam ne dama ko doon dundu muy affaire xale xam nga ba ma dem si kaso bi def fay at. moo tax tey su ma wëlbatikoo gis ku mel ni Bamba Mbuub mi mu mën a am xelu récupérer jeunes yi sama xel day dal sama xol day daal di sedd parce que tey jeunes yu bari ñu ngi si dëkk bi manque d'occupation rek moo tax ñuy def yenn yi di dugg si ñu war dugg kon tey soo nee insertion des jeunes. loolu sama xol da si sedd barki alxuraanu karim moo tax fu ma toog dama lay tagg wóor na yàlla ba ma la xamee yàggul mais fu ma toog dama lay tagg parce que loolu c'est normal parce que yow Sénégal bu amoon yow 3 a 4 wala 5 yu mel ni yow rek kon kenn waxatu ko xam nga parce que instant yaay fexe ba bëgg jeunes yu bëri jóge si lu ñu nekk dem si leneen xam nga te tey nit bu amul occupation xelam day nekk si lu ñaaw kon tey maa ngi woo jeune Sénégal yëpp même mbër yi mbër yi nga xam ne tey mbër mun ñu teg si làmb ji arène nationale bi ñu ne mun ñu dugg si géew bi di am na ñoo xam dañuy gunge mbëri nii rek mais tey ñu ñëw bénéficier wu si formation yi xam nga a am liggéey si leneen ak leneen da leen di arrangé te mbëri bëri boo xoolee léegi sax bàyyi nañ làmb ji concentré si sécurité bi kon ça montre que sécurité bi y a quelque chose kon noonu la demee maa ngi si woo ñëpp des na deux jours na jeunes yëpp ñëw ñu focaliser wu si liggéey bi ànd ak Bamba Mbuub jàppale ko mooy woo madame le ministre des sports xam nga de la culture xam ak de la jeunesse mu ñëw jàppale jeunes yi jàppale Bamba Mbuub si lii parce que lii lu am solo la lekk bu seer ak ay nangam mais boo xoolee insécurité total moo am si dëkk bi ah man chaque jour moo ko violence beeg banditisme bi am si dëkk bi jeunes yu bëri sax neexatuñ ma si neexatuma leen parce que li may wax arrangé wu leen mais li may wax sa normal sa normal foog ñu bàyyi ko xel population Sénégal nous sommes à 70 pour cent de jeunes te boo xoolee majorité bi yëpp jeunes yu génn wàll gi yëpp ay affaire bandi moo nekk seen bopp yooyu yàlla ñu a concentré wu ñun jeunes yi mel ni c'est une occasion à exploiter maa ngi sant ñëpp gërëm ah. euh, attestation bi nag bu formation bu jeexee ndax gis ngeen ne mi ngi tàmbali tey wala jeex vendredi incha allah li ci jàngale tey rek dinañ ci jàngale sécurité gardiennage voilà Mahfouz waaw moom moo représenté directrice wu stade bi Oulimata madame Oulimata moom euh, Mahfouz ñëw na sécurité gardiennage nga xam ne nekk na lu am solo ndax nit ki lépp lu muy def rek daf ci war a am formation boo ñëw ne nekk laa rek te it jànguloo lan mooy technique gu gardiennage sa gardiennage des na. mu metti woon loolu nag si moom mais toujours muy gëmm rek di jékku loo xam ne presque sax financement yi ñu koy li ko état daan defal pour mu def ko daawu ko matale daawul mat. moom moo doon jël ay moyens boppam di ko si def ñu ànd ak moom di jug di daanu di jug di daanu ba mat plus de sept cent et quelques jeunes yoo xam ne ñii ñoo ngi si làmb ji ñii ay civil lañ formé nañ leen ba ñu génn tey yor seen carte professionnelle kon ku ko gërëmul rek xalab nit bu la defalee lu baax boo téyee micro wax ko parce que ñun ay entraîneur lañ ay moniteur lañ mais dañu yor ay xale bu ñu gisee kuñu ñu siy jàppale dañ la war a sant yu mel nii bu amee. beneen bi ñoo ngi sant euh, chef Matar mu nekk nit koo xam ne diis na gan mais oyof na toll ci jeunesse bi ci wàllu li muy séddoog ñoom ci xam-xamam ku neex a jot koo xam ne jafewul soo koy wër doo sonn boo yéexee sax mu fekk la fi nga nekk te yàlla may ko xam-xam boo xam ne bëri na ay ponkal yuy dar tey ay kilifa ci loxoom lañ jaar kon kooku tamit yoon la bu yi amee ñu profitoo gërëm ko nit nag boo koy gërëm gërëm ko bi muy dund bul bàyyi ba gisatoo ko nga koy gërëm di gërëm tamit chef Diallo ku nekk xam na ni mu yàgg si affaire yi jàmbaarteem sawarteem lépp muy naaj heure bu nekk bu ko chef Matar soxlaa rek mu jub am yéene bu baax si xale yi civil yu bëri moom moo leen si dugal ku mu gis tamit ngay sécurité te amoo dara lu la couvrir. moom dina la jàpp teg la si ay loxo yu wóor ba nga am lu la couvrir ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko di gërëm Aliou Ba le sec euh, le président des entraîneurs national di gërëm sama benn mbokk mi ngi seen biir kilifa gu mag muy Demba Thiaw doon nit ku baax yor mbëru Yoff yëpp doon nit koo xam ne làmb yëpp jox nañ ko cër mi ngi seen biir noonu toog kon ngeen xam ne ndegam ay kilifa ñoo nekk seen biir te xamu leen ko ñim intéressé dafa bëri te am na ñu bëri yëguñu ko parce que dafa jemp ak période tëbaski bi mais bàmba na rek na forcé parce que bëggul tas yaakaar am na ñoo xam ne formation yi passé dafa leen rawoon ñu bëggoon ko dobu si bii ñooñu tey am nañ opportunité pour bokk pour am ma leen di gërëm si teewaay bi yéen ñi teew di gërëm ñi teewul parce que am na ñoo xam ne yëg nañ ko mais la leen téye tamit mën na doon loo xam ne gàllankoor la di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm moniteur yi fi teew yëpp di gërëm jigaan euh, moniteur la ñoo ngi gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn ak autorité yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di gërëm Ousmane Diouf kii bi ñu commencé lii Bamba jóge Europe ñëw ba tey mosuñu yëkkati xaalis di ko jox boo waxee mu ne sama yëf la Bamba sama doom la moo nekk ci annonce bi nekk RDV suñu lépp si loxoom lay jaar moo yor communication fils moo yor communication arène bi sécurité moo yor suñu suñu communication ñun ñi nga xam ne ñoo fonde woon affaire bi Mbaye Gueye Tigre de Fass ñoo ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu fii mu jugee parce que ku baax la woon ñoo ko formé woon woon magu Moustapha Gueye Mbaye Gueye ñoo fi nekk ndoo woon nekkin bu rafet fu nekk ànd na ak ñun voyage yi dem na fu ne nit ku dëggu nit ku baax yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu yàlla defal leen bon continuation lii ngeen wut soxla ko yàlla na leen ko yàlla yombalal te bu leen yombee yàlla ngeen ko jariñoo fekke lépp si barke Seydina Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo transfert local la ñun ñoo ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko